salaamaaleykum soppe yi xarit yi bokk am na jàmm yi ñoo ngi leen di ziar di leen bége di leen xamal ne fa tabaarakàlla macha allah boo leen gisee li xam ni seen xarit seen soppe Abdou Salam Ndiaye géwalu Sëñ Tuubaa lu muy door jataayu géewu ndaanaan fan la ko dooree fii ci 28 pro fa tabaarakàlla macha allah bu ne jataayu géewu ndaanaan nag koo xam ne ndaanaan nga rek ci biir la na boole defee noonu nag mën naa xaar réer guddee ci borom naajee seen soppe bi seen xarit bi dina leen bégal ci jataayu géewu ndaanaan fii ci 28 pro